des fois dafay renvoyer si li fi mës a am bi kolo colon colon yi ñëwee ba léegi fii lu fi tubaab bi bàyyi je pense que ci li mu li président wax ni jamono toll na foo xam ne je pense que façon de jàng bi ak sa façon d'évaluation bi il faut mu ànd ak jamono parce que loolu la ñu soxla hmm. aujourd'hui mooy que beneen xeetu jàng boo xam ne dinañu permettre ñu compétitif ci ci ci àddina fu mu toll jamono fu mu toll nii bañ rek rek figé wu trop ci ci tout ce qui qui est francophonie tout ce qu'ils nous ont légué parce que fu mu nekk ni mbir mi dafa nekk feneen te loolu c'est une réalité il faut ñu accepter ko. Charles Faye. ah bien le Sénégal ou demain c'est avec nos enfants léegi nag. Mhm. tout dépend la qualité de nos enfants demain. Mamadou Faye. oui li ma ji wax c'est mieux encadrer les enfants. Mm. élèves yi ñu encadrer leen et puis bon. Euh, surveiller aussi tam parce que xam nga affaire euh, internet dafa xaw a dévier xale yu bari ci hmm. seen objectif ñu bari léegi bon ils préfèrent rester sur devant leur portable di ci def yoo xam ne bon mënoon nañu gën a améliorer seen euh, jàng daal ñu gën leen encadrer Pape Djibril euh, Der il faut que ñu xam nag lan la ñu bëgg. xam nga président moom wax dëgg fa yàlla moom dafa gëm état des dafa gëm diagnostic. Hmm. loolu moo tax ci wàllu njàng mi comme dans tous les autres secteurs dafa defoon les assises de l'éducation def nañ ko. jël ay sommité ñu dugg ci def ay réflexion yu mag jël document bi dénk ko jëli Souleymane Bassir jaañ ak ay borom xam-xam ñu def les réformes de l'enseignement supérieur. mais réformer nañ réformer nañ fii réformer nañ fële courage politique rek moom moo des ak volonté politique donc ñoom xam nañ lépp. lan moo tax mënuñu jël décision yooyu pour am ay avancées yu notoire pour man ay calcul politique la ay politiciens moo tax mën nañu dem vers ça c'est tout alors. Euh,